barki maam Seena Fall Baay bi mu di ñu ngi ziar mbokku taalib yëpp mbokku julli yëpp waaye ñaanal Ablaye Sylla jëf ji mu jëf nii ngir jëm maam Seena Fall ci bis bi maam Seena Fall amee ngërëm moom lay yóbbu trang yi mel ni toll nii si ñuy ziar si am di Modou Mbène ma xam moo fi nekk jëmmi Seena Fall di ziar njaboot Seena Fall yëpp mag am ndaw ñëpp ah liggéey yëpp teg ko si Sëñ Saliou Sëñ Saliou Sylla mii lépp mu rafetal ko yaatal ko moom ndaw la wala jëfi mag lay jëf ngir xelam rafet na jëfam rafet na kon ñoo ngi koy ñaanal si dara jëy sëñ Saliou Touré si borom kattanal ko defal ko tawféex defal ko fan gudd ba liggéey bi ñu ànd ko am moom Ablaye Sylla moom ñëpp ko war a ñaanal jëf ji mu jëf si yoonu mu gisugu moo kenn ku yàlla bind ko defagu ko du benn politicien kenn Ablaye moom bàyyam si yoonu murid la juddoo mooy docteur Sylla ñëpp xam nañu diggante moom sëñ Saliou donc yi nekkoon xel comme yi bëri moo leen dugal néegu góor kon Ablaye mel nii bettuñu ah ñoo ngi koy ñaanal li mu bëgg ak li mu yéene si doole Seera Fall yàlla na ko Sëñ Tuubaa jotale si mbir mi bëgg nii ah, tey jii Baye Sall yëkkati na teraanga yu bëri mu war a yóbbu ñiy jàngal maam Seera Fall xasaayit 124 000 tu foto xam si bii si Seera Fall bi koy jànge tey bay saal def na taraange yu bari xam si jàngate xasaayit lañ ko teral ak jàngoon alxuraan kon loolu jëf jooju ñan leer na ko sëñ Tuubaa nangu na seerafal nangu na ko kon ñooy ñaan ñun ñëpp julli yëpp ñun mur yëpp jàppale Ablaye Sylla ba liggéeyam bi suñu borom mayel ko si ndam lu kawe daraje maam seerafal ba bi mudu ñoo koy ñaan baax ba yow Baye Sall ñoo lay ñaanal baax a baax ah li ñuy wax rek nit mën naa doon am mag eh, mag du si ay at si jëf la wala jëf ji rafet na lool sëñ Saliou ko ñooy ñaan yàlla na sëñ Tuubaa gàttandu yàlla na sëñ Tuubaa defal tawféex Ablaye Sylla moom daa gaaw moom gaaw laa ko tudde daa gaaw jëf ci yi jëf boole si ay wax amul kenn ko xam sëñ Ablaye Sylla defal na la tranga wax xam ko wala ma xam ko xam ko dëgg yàlla demoon ba sëñ Sidi Moxtaar amoon ci sogo si Ablaye Sylla ngir jëf mais ñëpp xam nañ Sidi Sidi Moxtaar nit yàlla aqan la aqan dundugam yëpp da ko jaay suñu borom moom moom moom laa mos a dégg si làmmiñ ni juróom fukki at yëpp kër ngaan laa nekk jaamu ko yàlla bu suñu borom nangul ma kon kon siñ sin maxtaar kon tey si Sylla loxo ñëpp war nañu rafet njort Ablaye Sylla li mu bëgg suñ tuwaat nag ko ak jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine ñu leen di ziar bu baax a baax di wéyal di wéyal liggéey bi rek comme ni ko sëñ Ablaye bëggee rek guddi guddik Cheikh Fall gi nga xam ne dañ koy màggal muy dëppook bis bis bu dellu ci ci weeru gàmmu waaw muy bisub Cheikh Fall ñu am ay xéewal yoo xam ne nii santaane nag ñu jébbal ko kër Cheikh Fall yi nekk biir Touba ñu nekk ci waajtaay gi nii di waajal euh, yóbbu nag yi nga xam ne nii moom la jagleel waa kër Cheikh Fall gépp mu toll ci lim bu am solo boo xam ne fépp fu ñuy cantalee Cheikh Fall ci guddik Cheikh Fall googu am na yéene wane fa wane fa boppam wane fa pas muy mbir mu kawe muy lu mu miin nag sëñ Ablaye moom li may wax rek ñaanal la boppam yàlla na ko saa taxaw bu baax a baax a baax loolu rek lañ koy ñaanal li may gën li may faral di wax rek saa nuy saa yu ñuy mal bis bi rek ay mbiram di gën a leer ci ci kanamu nit ñi ba tax na mbir mu am solo mi nga xam ne ni mi ngi koy def waxuma la ci yoonu mu murid de waaye ci umma islamique bépp yàlla ci daje ngërëmal saa borom ñun ñun nag li nekk ci lekk li nekk suñu xol la ñuy ñaan te jullit bu nekk am na am na am na droit ñaan li nekk ci xolam li nekk suñu xol mooy yàlla na ko saa borom def mu nekk le cinquième président de la république du Sénégal ndaxte bu ko doonee njariñul askan wi la maanaam moom daa bokk ci ñi nga xam ne nii ñooy jariñ askan wi wax dëgg yàlla jëf jëm fi jëf amul benn doomu aadama bu ko jëf ci Touba amul benn doomu aadama bu ko jëf ci lislaam waaw buñ buñ waxee buñ waxee dëgg rek ku nekk wax sa aqulahi taala li mu jëf ci yoon wi jëf ko ci lislaam amul ko ko fi jëf amul man ba ma juddoo ba léegi mu su gis ku ko fi jëf waaw ba tax na loolu daal yàlla na ci daje ngërëmal saa borom ci bàkkeb Serigne Touba ci bàkkeb Cheikh Fall yéen yéen waa Tamba yen waa Tamba yi nga xam yéen fi nekk Serigne Touba Tamba yëpp xaar na ñuy ñëw Ablaye Sylla muy ñëw Tamba yéen xaar ko ak Kédougou yéen ñi nga xam ne Serigne Touba rek ngeen liggéey taalibe murid murid pire mooy nii xam làqatuwul Ablaye moom ñëpp xam nañ ne ab murid saadix la murid saadix mooy Ablaye Sylla yéen murid yëpp damaa bëgg képp kuy jàng xasaayit wala alxuraan ba fasal Ablaye Sylla mu doon président Sénégal de la République Sénégal benn Ablaye daa regg bu pare kon kon liggéey bi mu bëgg a liggéeyal Sénégal du xaalis du dara fekkoon xaalis day dem toog këram wala bëgg a yaatal dëkk bi ak liggéeyal Sëñ Tuubaa la bëgg wane liggéeyal Sëñ Tuubaa la bëgg àdduna bi yëpp nañ déglu Ablaye Sylla nañ xaar Ablaye Sylla képp kuy sama mbokk taalibe yi jàng xasaayit maa lay ñaan wa ñaanal ma Ablaye Sylla mu doon président Sénégal de la République 2024 bi incha allah rabbi nuyu ñëpp di nuyu jëriñ yi ñu yónni sëñ Saliou Sylla di ndawal sëriñ Ablaye Sylla mook sëriñ Jili Ñang di leen jottali nuyoo sëriñ bi di leen jottali ñaanam di leen jottali jaajëfam eh, jëf ji di jëf ju rëy ci sëriñ bi ndax sëriñ bi moom dafay nekkal suñu boroom dafay nekkal suñu boroom eh, jiite mbooloom maam Cheikh Ibra ngeen jàpp ne Cheikh rek ngeen maam Cheikh Ibra ngeen di jëfal jàpp ne maam Cheikh yaatu na jàpp ne kër maam Cheikh yi bëri na waaye jàpp ne nag ci biir kër yi am na ci ñoo xam ne jëf ju jëm ci maam Cheikh rek yaayoon nañ ko ngeen tànn ci sëriñ Amdi Xadi boole ko ci jëf jooju sëriñ bi loolu sant bu baax ñu leen di jaajëf jaajëf bu baax di leen ñaanal bu baax a baax di leen di ñaanal jëriñ ji leen yónni muy sëriñ Abdoulahi Sylla di leen ñaanal yéen ñi nga xam ne yéen yéenay ay ndawam ñëw fi indi leen jëf ji euh, fi ngeen ko indi nag boroom kër gi mooy Chérif Assane ki fi nekk tey ji nekkal ko fi mooy am Amdi Khady waaye borom kër gi nag dafa am lu mu waxoon dafa waxoon ne mën naa sama kanam mën naa sama ginnaaw loola mu waxoon nag mooy daw ba léegi kon li fi nekkoon jugu fi lu fi waaye daan sàkku ci jamonoom ku ko sàkku fii ci tey ji ci jamono ji ñu toll suñ boroom mën na laa cee dimbali ba nga am loolu kon nag bi ngeen delloo nee leen sëñ Abdoulahi mu rafet njort bu baax ci li muy sàkku ci yoon bi ndax yoon bi moom jëf rek la ko suñ maam Cheikh Ibrahima sance te jëf ji moom yéen a ngi ci waaw kon nag mënees naa rafet njort bu baax ne li ngeen di sàkku da ngeen ko am ci barke maam Cheikh Ibrahima barke borom Kawsara barke Cheikh Moussa Fall la ilaha kàddu yooyu ma tàmbali woon rek hmm, doon la nuyulee murit bi sukk fi sa kanam di saw turandoo moom it saariw la ñu ko wax sëñ saariw silla di rakki sëñ Ibrahima silla ekotoraan yaakaar naa aw moom miin nga ko lool ci baati ndigal yi ba ci ndigal yi daanu barki dimb rek muy màggal Tuubaa gi buñ koy waajal di mbale mi nga xam ne ma nga tàmbali woon ci jamono yi Cheikh Mamadou Lamine Bara nga xam ne at mu njëkk ma yaakaar naa am na fukki fan ak benn ci biir dëkk bi àndoon ko jëwriñu Cheikh Fall ji Serigne Cheikh jëmm fukki at ak juróom at mu ne su weer wi feeñee muy màggalu Serigne Touba ji sëñ bi joxe ndigal ci nañ ko sellalal dëkk bi ngir waajale ko bis bi téere ko gani sëriñ Tuubaa yi boobu ak tey nag murid bi ñu woowee sëñ Ibrahima Silla ku ne xam na digganteem ak mbalem Tuubaa ak yeneen nag yoo xam ni mi ngi ci biir ci bokkut ak mbalem ab Ablaye di ci dox bu nu àndee ci mbalem ba mu jeex day jëlaat oto yi boole ko quatre plan yi ak biir yi ñu àndandoo wër dëkk bi di ko sëkk fuy ay taataane wala ay xóot-xóot ngir bu gan ñëwee kenn bañ am jafe-jafe loolu yërim nag xam naa mooy tëli ko waaye nañ ko ñaanal yàgg ak wiir li mu am ko su ko amee dina ko def ba ren jii ku ne gis na ko ñoom nag sëñ Saliou yi ak sëñ Jili ñoom mii la fi yebal waaye bi ngeen ñëwee fekk fi jëwriñu bis bi muy Serigne Gonda ibnu sëriñ Basiru Faal alxuraan moom mii la yàlla dogal tey la waajuram wa yene woon mu wàcce kawam waaye nag def na la waajuram wa defoon tàllal na loxo ku mbokkal Seex Faal tàllal na loxo yoonu murid bi yëpp tàllal na loxo lislaam jépp moo tax ab laay ñett yooyu génnu ci dara génnul lislaam génnul yoonu murid génnul kër Seex Ibra Faal bi sëñ mun a tàllale loxo mu yëkkati loxom teg ci loxom yabal la nga ñëw fekk fi jëwriñu bis bi sëñ Bass Thioké yaakaar naa sëñ jëli mii miin na jëmm ji ngeen fekk ko fee ci buntu ba jëwriñ nag loolu la baaxoo boo ñëwee cool da ko fekk bu ci moom doy na daa ñëw gis sëñ bi wax ko ko xamal na ko ne sëñ si laa fi yónnee lu jëm ci bés bi ay nag la ñu ngi nii ci oto bi ci bis bi kat ku ne xam na ni bokk na ci li gën a sëriñ bi ay nag. ginnaaw alxuraan ji ndax alxuraan dara gënu ko féete kaw waaye bu jàngee ba noppi daa bëgg a togg aw ñam yit ko mbooloo njabootu Serigne Touba yi ak ñi Serigne Touba gërëmoon seen i maam noonu la ko daan defee ndekk jekk doo ko dem Tiwaaw ba bis bi ñu fii noonu la koy defee bis bu nu xëyee ba la ñoo tas kaami ñam wi daa dem la ko dale kër seex Cheikh Modou Moustapha ba ci kër seex Cheikh Mouhamadou Mourtada fu ne ay dab dafa wàcc loolu it la sëñ Gonda mi doon fas yéene ko kon boo fi ñëwee indi fi ay xéwal ni Ablaye nee na dafa am lu mu bëgg te wóor ko ni bu jaaree ci Cheikh Rafal am ko moo tax mu jaar si ko waaye jaar na ci bunt boo xam ne nag yaakaar naa bunt gënu koo yaatu buntu gënu koo gaaw muy Cheikh Bassirou Fall alxuraan ñi ngi koy ñaanal rek ci barkib addi ji fam jaaroon ne kii fi toog sëñ ko na nga jaar ak Ablaye Sylla foofa ndax li ko waral moom xam nga ko yow dara umpale ci damay tàmbali rek waaye di nga ñëw ni nga ko xamit ni la ko sëñ Basiru mi xamee njaboot gi toog am na ci ñoo xam ne noonu lañ ko xamee sëñ Bas nag jumtukaay yam yoroon doon ci liggéey leen yàlla ak yonent bi Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra Fall ba muy dem àjjana yóbbaalu ko da ko fee bàyyi lépp a ngi ci yow lan doon wut si rek moom la ñuy wut si waat tey jii Ablaay daal dañoo bëgg nga def ko ni am xuur di def doomam waaw alhamdulilah waaw mhm. jeex na tàkk jeex na tàkk waaw waaw mhm. Mhm. ndeysaan jërëjëf Fall jërëjëf jërëjëf Fall alhamdulilah seeta sa bopp alhamdulilah hmm. hmm. hmm. jërëjëf Fall jërëjëf Fall jërëjëf Fall jërëjëf doy na sëkk jërëjëf Fall doy na sëkk jërëjëf Fall jërëjëf jërëjëf Fall jërëjëf Fall jox loxo yi jox ko loxo yi jox loxo yi jërëjëf te lam ca waxoon ba suñ jonni tey ku ko xool gis ko mm-hmm. Euh, lay cosaanal bis ku ci xoolit te amum jàngat ndax nit moom day yeewu yeewu moom dara warul ko moom amum xel te ne jar tey xalaat mag ñi am na fu ñu doon roote fañ doon roote mi ngi fi du fi jóg mukk ci àdduna ku ci amul dara ci yow la làmbal sa bopp waaye lu baax moom du doorum safaan mukk ci àdduna kenn du ko def di ko rëcc lu baax kenn du ko def di ko rëcc buñ ko doon def di ko rëcc kon mag ñi duñu fekk dara wala duñu am dara waaye la fi mag ñi demoon ceemoon ci lu baax ba léegi mu ngi fi ku ko sàkku it am ko képp ku la ko yombal nag moo la ko xañ xaw a dee rek ak moo koy maye tëddi nelaw du ko maye tëddi nelaw du ko maye ay jaaxaan du ko maye taxawaalu du ko maye am pas-pas bu wér kenn moo koy maye kon bis bi képp koo xam ne fekk nga nu ci li gën a wér loo ci sàkku rek suñu borom dina la ko defal loolu borom bis bi ko waxoon te la ma waxoon xam naa ko gis naa ko it nag ba cokk bi moo gënoon bis la sëñ bi foogoon lépp teg ko ci loxo ba léegi maanaam moo yore moo yore moo yore lépp ci ci ci bis waaye xam na ci dara li muy wax moom xam na ko mën na koo seet te lii moom dama ko yàgg jarabu ci moom te damaa yàgg wax ne ma bis bii dama koo seet suñu borom da ko ko nangu. Mhm. alhamdulilah te man Basiirou Fall lépp loo seen ma di ca sonn. sa ba nga sonn ja ndax lépp loo seen ma di ca sonn lu ma seet bu sama borom nangu ko. waaye sama tànk bi moo ko teg ci mbooy. moo ko ko teg ci mbooy. suñu borom nangu la. ñun hmm. ñëpp moo na fi baax. ndax lu suñu borom nangu moom ku yàlla dimbali mm. da nga ca doon daw da xalaat jëm ci mm-hmm. wala nga nga jëf jëm ca mm-hmm. wala nga dox jëm ca Seex Ibra nag bis bii loo ko mooy mm-hmm. digganteem ak Sëriñ Tuubaa rek la loolu moom bu ne mën na cee jànkat ci ci Seex Ibra ñaar ñoo àndoon ànd ba bis nga xam ne moom lam ba yoon yitti wu ci Sëriñ Tuubaa ca la ko jote woon loolu rek mooy bis bi moom rek muy fukki fan ak juróom ñaar di bisu talaata ren nag bis bi daa delluwaat ca cosaan Mhm. ci bis bi bis ba yàlla xam na ne lu ci waay fas te muy dëgg ci yow suñu borom dana Ablaye daal li ñu bëgg na ko am alhamdulilah lépp lu mu bëgg na ko am xam ci waay fas te muy dëgg ci suñu borom dana ah? si mun jël baatu sëñ Abdou Karim Mbacke ah, sëñ Fall daaw dem naa ba ca moom jégum ko bis daaw dem naa ba loolu laa saw daal dem ba ca moom muy waxtaan fa waxtaan wu yaatoo yaatoo yaatoo mu yëgal ko bis bi Abdoulaye la ilaha illa la li fal li sëñ Basu wax léegi sëñ bi rek ci téléphone bi waaw sëñ Ablaye si la ca Ecotra euh, mooy camion yi moo ko moom moo ko fi daa indi boole ko peel yi nga xam ñuy tibb suuf si ak yëpp rek gaasuwaal yaag borowet yaag fii nii sax am na yoo xam ne ñu ngi fii ci këram gi gis naa ko bërki ci la doon maasale suuf si kookee nag moo yónni rakkam ji di sëñ saaliw boole kook sëñ jili ñag mii ñu indil ko addiyam ci bisub Seex Rafaal bii nga xam ne sa mag ju baax ji moo ko daan taxawee ba mu ko tàmbali ba fii ñu toog fu ma mas a jëm rek yaa moom ko ànd topp ci ginnaaw at yu yàgg ngeen ànd ko ca Tiwaawoon ba ci Tuubaa gii ba sama borom dogal mu wàcc liggéey bàyyi leen liggéey bi nga ànd ko sëñ jiw sëñ Aliou magam moom it borom wàcc ko dogal wàcc liggéey tey jii mu toogee jataayu sëriñ Mbàkke Fall moom mii mooy sëñ Seex Cokke mooy xalifab sëriñ Mbàkke Fall mooy waajur sëñ Bas wi moo jël addiyam yónni ko ko ni nag ko indil ci bisub Cheikh Ibra bi tudd ci sëñ Amdi Fall mi nga xam ne moo fi toogal Cheikh Ibra tudd la ci yow mii tudd ci sëñ Ngondo mi nga xam ne mooy taawub sëñ Basiru Fall alxuraan ak sëñ Falilu Fall sa doom jiyee moom sëñ Modou Aminta nii la ko wax tegal ma ko seen loxo nag yi nii ci oto bi am na lu mu bëgg nag muy réew mii te yaakaar na ne bu ci jotee réew mi bu ci jotee li ngeen bëgg dina ko def ñun nag am na luñ ci xam maag suñ bas mi nga xam ni dese nan ak ndaw di dox di gis di dégg gis nañ jëfum ci dëkk bii mbali mi nga xam ne moom alaaji baaraa ko digaloon suñ see jëmb sa mag ja mu bale ko fukki at ak juróom yii na ko ànd ba ci sëñ Amdi Fall Moodu Mbend mii ba ci borod yi ma la wax barki noonu la koy def ba ci barabu sëñ Fallou bii ban koy yeesal engagement yi moo ko jël moom nag nuru na ni warul sëñ bi nañ ko dimbali am na fi ku fi mas a toog rek la ko fi te xam nan ko Ablaye mii du leen war nan ko jàppale li mu wut mu am ko looloo tax Saliou mii sukk fii fi sa kanam yaakaar nag du fi tase moo tax mu ñëw yaakaaru fi tàllal la ay loxoom bëgg nga ñaan ko sa barke waajur ak sama maam ji Cheikh Ibra Fall li mu bëgg rek mu am ko. waaw waxuma la liggéeyu réew mi. yor gi na ko taxaw na mu ko bëggee. amiin na ko ci amee. amiin ñun ci suñu bopp itam. Mm-hmm. loolu rek la fi baax. liggéeyal Cheikh Ibra Fall dong nga fi bàyyi leen ba ëpp. donc sant di ko gërëm. la ca dolli ko mooy la muy toppatoo te di ko liggéey yàlla ko yàlla yonte suñu barkeel lii di réew mi man sama wax benn rek la koo xam ne kii laa xamante ca dëgg dëgg dëgg dun Sénégalais dara war a wul bisiwaat da seet nag ñi Sénégalais nu mm-hmm. jox leen réew mi waaye ay Senghor ak Karim Wade ak Abdoulaye Wade ak dégg moom ak lakk Tukulóor bi yëpp ah, ah. loolu moom ca dëgg-dëgg hmm. bu fekkee ne man nanu dara hmm. nanu fexe nag ah, sénégalais bu moom yow mii waaw waaw nan nan fexe nan bu moom yow mii loolu moom bu doon seen man maa ngi wala waaw lépp loo xam ne daal moo tax moo tax ab taalibe ak sëñ bi lépp lu ci maanaam nanu jiital yàlla yonent ba sëñ Tuubaa teg ci maam Cheikh Rafa lii bu toppatoo ak réew mi man ànd naa ci te te man du ma ne waaw te du ma kon nag nekkoon dina ko sant dina ko gërëm jërë ngeen jëf. yàlla ko teew na si déwén. te te li muy li muy. li koy defal defal ko ci loxo yi. boo boo bu dee def ko ci loxo. def ko ci loxo yi rek. waaw ndaw yi def ko ci rek. def ko ci rek. amiin Fall. dama yóbbaale ñu ndam rek. ak teg Cheikh Ibrahima Fall. amiin sëñ amiin sëñ sëñ leeral sëñ bi rek. ndaw yi li leen tax a jóg. ak ki yónni. murit boobu ñuy wax sëñ Ibrahima Sylla. Abdoulaye Sylla moomee. waaw. ma ngoog waaw. moo yónni woon rakkam ji. muy sëriñ Saliou Sylla. Mm-hmm. boole koog Serigne Jili Ñang mii. Abdou Khadir. Ah, mm-hmm. di Ilimani. Touba ji eh, ci bis bi nga xam ni mooy bisub Seex Ibra Faal bi di bisum ngërëm li xam naa wax fi yow du yomb waaye li ñu daan wax rek lan ci man rek ñu ñu ñu ñu dégtal la ko li wax indiwuñu fi jëf mënu fi indi eh, sëñ Abdoulahi daa jëf ndax daa dégg bis bu ñuy woote mu fas yéene si wuy si te yaakaar ni bu ci wusee dina am dara waaye nag mu bañ a ñëwee loxoy neen ni woon damaa bëgg fab sama addiya jiital ko yónni ko sama rakk hmm. boole kook sama xarit di sama soppe lu toll ci fukki nag fukki nag juróom ki fi nekkal Cheikh Rafaal la ko jox muy sëñ Amdi Fall mu sëñ Modou Mbend mii ñaari nag yi mu teg ko ci loxol jëwriñu bés bi muy Serigne Gonda Fall moom sëñ Basiru fa la bàyyi ko léegi foofu nag wenn nag wa yut ko sëriñ Cheikh Cokke mi nga xam ne mooy kilifa Serigne Gonda fabaat yeneen ñaari nag yee ci des ah, ni nañ ko indi nag ah. ci jëwriñu sëñ Mor Aminte ji ah, muy sëriñ Falilou Fall teg ko ci loxoom yow mii nag mm-hmm. lu jëm ci sëñ Mor Aminte mm-hmm. ku dajeew bu yow mu jox la rawatina sëñ Fallou damaa déggul na ko mbayloo wooyee naan fal xaw ma Moustapha moo moo teel a gëm fal topp ko ci Touba ba ko la ko toppee yu bare bare yu mu ca teg mhm. nga xam ne dañoo wax ni juróom-ñaari at moom mii mhm. Saliou mhm. ba léegi mu am juróom-ñaari fukkaat mus musuñu dégg ci àdduna lu def kilifaam gii luko ko moom sëñ Moustapha mii sëñ Falilou Fall mii nga xam ne mooy kilifaam ñu bokkoon dem ca daara ja ba fii ñu toog mosuñoo xam lu sëñ Moustapha def lu naqari sëñ Fallou baa lu naqari kilifaam waaye nee na moom it as góor la mustu xam lu ko sëñ Fallou def lu ko naqari kuy wër Fallou nag ba yem ci Moustapha bu yebu nga taxaw léppi kër sëñ Modou Winta sëñ ne ca kanam waaye lay doxal yëf yi sëñ kii daal la sëñ Fallou ni woon moo di samay bët mooy samay nopp mooy samay tànk mooy sama làmmañ bopp du am ñaari làmmañ bopp Saliou du am ñaari làmmañ fa sëñ Fallou toog fa Mbàkke moom mi la ko fi ba mooy bëgg fa sëñ Fallou ñëwee fa war a ne dara lu fu manqué looloo ko fi bàyyi démb fi la yendu tey jii fi la yendu ki fi jug nag ba keroog sëñ Fallou di delluwaat Mbàkke ni ko jëre Fall bis bi noppi na addi ji nag mi ngi nii yeewe ci oto muy ñaari nag yoo xam ne ay tànneef lañu moom la sëñ Ablaye ah. si <laughs> la joxe ah xanaa yomb la la la dal murit bu mag ba rek muy Cheikh Ibra Fall ak bëgg ak bëgg daal la am lool moom mii nag man man man la naa lii moom da ci firnde waaw ah. xam nga xam nga sëñ bi li lay daaneel yow ah. cee daaneel ñu baax ñi mel ni yow mooy murite gi xam nga bu fekkoon wërsëg la mm-hmm. danaan kii du yor melokaan wi mu yor day ñëwee neneen di wane ni sama poos bi dalaa ngi wala diw mooy sama mag am na lu mu yor waaye jëmm ji yaakaar naa ni waaw ah. waaw waaw xam nga hadiya mel ni ku mel ni yow daa wooy wooy sooy mhm. waaye bu disee gan mhm. wëri soo déedéet déedéet déedéet ndax luy jeex te luy jeex a ko joxee mhm. dafa du séddale ñu bëgg na mu yor melo mu ko mën a séddale melo wuñ ko mën a séddale waaw tàmbali sa bopp mu ngi alhamdulilah waaw waaw Abdoulaye mii si la waaw Abdoulaye si la li mu li mu def defalu ko yàlla cey li li gën a xamaatoon ni defalu yàlla doon nii déedéet nee na bi mu feeñee adduna ak léegi ah, mënu fee liggéeyal yàlla lu nii lu toll ni sa borom ko fay lii mu am waaw nee na waaw nee na am loo xam ne sa borom da koy baaxee ab jaamam waaye ndey du ko liggéey bàyyi du ko fàggu bokk na ci li dal sëñ Ablaye Sylla Ecotra nee moom mii nag daa mel ku bari wax waaye moo ko Ablaye Sylla ñoo yem ndax lii ma nettali ci moom mii nee jëfalu ko yàlla. dañ ko koo baaxee rek. ndax bari na ñoo xam ni. fan ne. sëñ daam yaa ngi dégg waaw Fall waaw. waaw nee li leen fa bàyyi mooy. lu nu am. defale ko adduna. nee ñoom nag bëggul bëggulul adduna dara. nee lu am lu ne moom mii. da ko bëgg a teg ci loxol. nee jubluwul sax ku ko gëm. nee bëggul ku ko gëm. nee nan wax dëgg rek ñoom. ne lépp lu ñuy wut ñoom yoon wi rek a tax mu di ko wut ne dafa koo bëgg a teg ci loxol kii mooy xoole sëñ Modou Aminta Fall dong nag ne lépp lu ko ci dikkal nag bu taree bu bànneexoo nungu nan gor soo xam nag bu noppaloo du sonnati ba faw soo see gor de lu mu sonn sonn eh, doyul nee te fii moom ku dundoon junni at faaw danga dee moom fan jëm nag moom des ko mënta fàggul nee bu fekkoon kenn da ko mën a fàggul kon addi mii la naan moo ko mën a fàggul lii Ablaye si la joxe nee Ablaye lim joxe nee kenn dafa xëy xamul pay yoolu addiya nee li sëñ Tuubaa di wax yépp néewul kenn lii mooy payuk addiya danaan la ku joxe addiye day ku joxe addiye bokk na ci bokk na ci da nga xam yii da nga xam yii nee la njëkkoon nag doy na ca mooy kuy joxe addiya du tàbbi sawara nee na xolu boroom lay bijji jëmee ko rek ci ak texe nee lool rek doyoon na sëñ Saaliw nee day yëkkati darajey jaam bi ca boroomam nee addi it joxe ko day tax a gudd fan ne addi ku koy joxe day tax a jiitu sag maas kon na Ablaye jiitu rek. waaw waaw dellu ca teg it ñaar ñi nga xam ni ñëpp a ko ragal lépp a ko ragal. mooy ki xamul kenn ak kenn xamul. di mun kër ak mu nàkkir. nee na kiy joxe addiya du gis ñaar ñooña kon Ablaye Sylla dalal la sam xel. nee na dees na ko tabbal àjjana it kenn du ko xisaab nee kenn du fitnaal yaramam nee ba tey des na de nee joxe joxekati addi yi mel ni sëñ Ablaay dañuy dem ba ci jannatu firdawsi ñu naan leen waa ana siraat man doon wax ñu naan naan des na ko jéggi fekk jaar nañ fa jaarin ba moo gaaw rek nee na joxe addi day tax a gaawal jéggib siraat nee mu des nag mu nee na mu des nag sax nee na lii ñuy wax sax ku dugg ci bàmmeel yaakaar ne war nga koo gis waaye ki joxe addiya du gis sax moom nee loolu kat sëñ Saliou lu ko firndeel mooy barabi Tuubaa yii ñu naan fees na kenn mëstu gas ba sulu aw sax nee lu néew ba nëpp nëpp nëpp sax du ko lekk moom waaw nee baat boobu rek mënoon na firi kenn mësu ko faa gis waaw. nee boo gisee ñu naan lool du fay sëñ bi dajaa teg ni nee lépp lu suñu borom di delloo jàmbi ci addiya li suñu borom di delloo jàmbi ci addiya mënee su ko bind ci xalima mënu su ko tudd ci aw làmmañ nga xam ne loo mën a bind benn dërëm junniy milliard sakkanul saaliw nee na xam nga li sakkan wenn nag wii sëñ Ablaye si la joxe ñu fay ko ci dudul jeex nee bi ne mënu su ko bind mënu su ko wax da caa boole ni néewul benn dërëm dañu benn hadiya muy benn socc bi wenn nag wi nga gis samb samb téeméeri at mënut am junniy nag gis Abdoulaye Sylla joxe wenn nag ñu fay ko ci fukki junniy nag ak ñaar te loolu du fay ki dañ koo tudd rek nee bokk na ci rek benn addiya fukki junni nag ak ñaar fukki junni yoon ak ñaar addiya bu ne dañu benn addiya bu ne ne fukki junni yoon ak ñaar des na ku ko ful delloo ko boroom rek loolu ku koy gis di sàmmi li am laay def rek kay waa ji waaw di sàmm saw nag gars yi jaar ci na jël ko kala siñ daam gi ne bu ñu doon jàpp yow mii jëkk a jàpp Saliou teg ci di Abdul Xaadir mi ñang teg ci sëfoor bi yor oto bi booy topp sa géttu nag gun fab xa kay oto bu sëf xar yi baa naje faaw jàpp borom moom diwo ma yabal ak diwo yëpp ak diwo ko moom ne sëful ñooy topp moom moom jàpp rek jàpp rek yóbbu fi ne yéen ñii kat yéen la sëñ njëkk jàpp doo ko egg ci Ablaay waaw soo ko egg ci Ablaay kon neel Abdoulahi ci turu sëñ Falilou Fall nee sëñ Fall neex na waxal nee moom defalul boppam santul boppam kilifaam lay waxal kilifaam lay defal nee moom dara de day wax waxe jàmbu rek li kilifaam di def ca def loo ko ko wax loo ko ko nee loolu rek lay nettali dong nag faal nee kon ci turu sëñ Falilu Faal jëwriñu Seex Ibra Faal ji jëwriñu bis bii kim def muy jëwriñam ak cantuk boppam ak cantu mboole ñi nga xam si sëñ Touba mooy Cheikh Ibra Fall mi nee na mi ngi koy dëral di ko jooxe jëme ko ci Abdoulahi waaye nag mu jaare ko ci rakkam ji di Saalihu boole ci Abdou Khadir ñag mii nee ngeen jottali cant yi ak ngërëm yi nee fan yu guddi yi ni ñaan ak wërsëg yi nee saatiri si dox suñu digganteeg leen am moo tax ñuy laaj yàlla dara waaye ku sa bët tege woon ci la nga am ëllëg nga xam ne sëñ bi ko digee ba noppi di ko def dootoo lekk dootoo naan dootoo woddu danga naa ginnaaw maa moom lee naa dee tey rek te tey itam nee doo yem ci tey danga naan nay léegi nee kumpa gi rek kay tax nee suñ ñaan yu yëpp nag kumpa ci fan jëm rek la waaye ka dige moom ca lim digg dina ko def nee ku sëba tege woon nee dootoo lekk mukk dootoo naan te doo ñaan wit fekke déwén doo ñaan dee tey nee dee léegi ngay bëgg rek nee ginnaaw maa moom lee ak médd mi ma àndal génn naa ci moom waaw nee bu sëba tege woon loo gis te médd lay doon ci yow adduna day doon médd ci yow nee kon ñi ngi ñaan yàlla suñu borom mu dimbaluñ ci jaamu yàlla bii di Abdoulaye Sylla Abdullahi kat mooy Moustapha dañ ne ko yaay jaamub yàlla bi am ñu ko naan yaay fadilullahi yaay ngëneelu yàlla am ñu naan ko yaay ku nu wóolu ki Momadou Lamine am ñu ko naan Mouhamadul Basir ba muy ñetti téeméeri tur ak ñeen fukk am ko ñetti téeméeri tur ak fanweer ak ñett nga xam de indi lim bu toll ni Badar am ku indi ñaar téeméeri tur. ak benn kepp loolu lépp nag Moustapha rek ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam kon Abdoulaye Sylla nee yaa gën a xam ne defuloo yàlla lii mukk mukk dañ la ko baaxee rek ndax lii nga am ndey mënu koo liggéey do ndey mënu ko liggéeyal doomam bàyyi mënu koo fàggal doomam nee na am ba noppi di jox yàlla suñu boroom jaare ko ci Cheikh Ibra Fall jaare ko ci ki ñu bind lépp jëwriñu ki ñu bind lépp nee kooku moo matal loo teg ci loxo sëñ Touba ndax jeex na loolu jeex na loolu xol moo ko mën a dégg waaye xel mënu koo dégg dara du tàbbeeti fa suñ boroom ca jaarul fi man ñu ne waaw mu ne waaye nag dara du fa génne it te jaarul ci man ba tey rek nee ñoon bu ñu yëgoon du dal baa ndax jàng bi rek moo nu sot te ku la gën a jàng nag moo la gën a umpale sëriñ tubaa mii ndax li fi sëriñ tubaa indi nekkul ci ay téere bu leen kenn jaayati aw jàng dëgg-dëgg ab saay-saay day jàng ba xàmmee dëgg ak fen xam yoon ak ñal yi xàmmee leer ak lëndam bàyyi fa leen di def leen tere nee mas ngaa gis kenn ko dalul baa ko yëpp sëriñ tubaa amul nee ko yëpp yoon wi moo ñi jàng aslëf rek xam ni jar na bañ a dal baa ndax nga bañ cee bokk jërëjëf <laughs> Fall jar na ko de waaw waaw waaw waaw daal Fall waaw mhm. waaw waaw waaw mi mi mi waaw mi sëñ Saliou nee na bokk na ci mébéti sëñ Ablaye lii ñu naan euh, fukki nag loolu sax nee na gàcce la fi moom dañu bu ko tudd mukk ndax ndax daa daa daa am na wut ci amaguma ko li ma wut nag li ma ci fas su fekkee su ma ko amee def ko na naa ko am su fekkee su ma ko amee du ma ko def bu ma ko am wóor na ko ni li muy wut su ko amee mooy li sëñ Tuubaa bëgg rek laay sax ci loolo ba faatu jot mu faatu réew mii la bëgg nañ ci fexe mu jot ci waaw waaw nee réew mee xam moo sëñ waa ñoo bokk xam waaye li bëgg moom waaw ah, nee lii mu def lam ca ame ki bind lépp xam na ni bu ci bëtam tege woon du laaj ci ab dëkk du laaj kër du laajum néeg waxuma laa kum réew waaw lay faal waaye alhamdulilah nee li mu bëgg yàlla na ko am kon mu jeex tàkk waaw waaw li bëgg na ko am rek sëñ Abdoulaye Sylla daal luy sëg bëgg rek ñun faal waaw